bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama wa baraka ala habibihi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ayuha al mushahidun fi kulli makan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñoo ngi leen di nuyooti si fi leen daan nuyoo muy jataayu firi firi xadis te mooy tafsirul ahadis bi nga xam ni seen mbokk oustaz Dame Ndiaye moo koy def fii ci Mourchid TV ndeysaan ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziyaara ñëpp di baalu ñëpp xaq di ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla ko yàlla def muy lu jub waaye nit ñi jëriñoo ko tabarakallah mbokk yi suñu émission bi passé woon dañoo tàmbale woon di waxtaane li ñuy wax maratibu diin ànd ak xadis bi nga xam ne ma ibnu Xataab radiallahu taala anhu moo ñu ko solo muy expliqué ci xadis bi maratibu diin te mooy bi sang bi ñëwee toog si kanam yonent bi salallahu sallam kenn xamewu ko kenn xamul fu mu jógee sol na yëre yu weex toog ci kanam yonent toogaay bu jekk di ko laaj ay laaj yoo xam ni tontu ba daf ñuy jàngal maratibu diin athalaata mooy al islaamu wal imaanu wal ci islam la wax kon nag bii yenn sula sam di continuer waa di ko laaj muy tontu tabarakallah bi seydina muhammad salaa sallam noppee di leeral lan mooy al islaam sanga bi daf ko ni wala ba ki toog daf ko ni axbir ni an al iman qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axir wa tumin bil qadar xayri wa charrihi qaala sadaqta sallallahu alayhi wa sallam waa ji ni ko sanga bi dama bëgg nga xamal ma lan mooy gëm yàlla lan mooy al iman ñu ko ah al iman daal te mooy gëm maanaam al martaba thaniya moo di da gëm yàlla d'abord muy première mbir bi nga war a gëm nit ki loo mën a gëm te gëmoo yàlla sa gëm ko wérul kon nag a noqtal ola mooy al imaanu billah da war a gëm yàlla yéen tamit war a gëmit ay malaakaam waaw nga gëm ne yàlla am na waaye nga gëmit ni malaaka yi euh, yàlla moo leen sàkk ci ay sarbisam lañuy dox muy ñaar waaye bi kutubihi nga gëm téere yi nga xam ni moom la yàlla wàcc dinaa ci ñëw gëm yonent yi gëm yomal qiyaam gëm dogal itam mu juróom benn yi nga xam ni benn boo ci ñàkk gëm sa gëm yàlla matul sallallahu alayhi wa ah xanaa rek ñu jéemal leeral benn bu nekk suñ kemt lay kàttan bu njëkk mooy al imaanu billaahi gëm yàlla mbokk yi gëm yàlla lu lu lu mat a seetlu la nan nan la ñuy gëmee yàlla xam nga rek gëm na yàlla rek doyul wax ko sa làmmiñ ah d'accord baax na sax gaa waaye al imaan mbir la moo xam ne nit da koy fas ci xolam al intiqaadu bil qalbi sa xol day fas ni yow mii gëm yàlla nga xam ne ku xaroon sa xol bi tey fekk ci gëm yàlla gu mat sëkk muy benn waaw waaye an nutq bil lisaan nga doo ko wax sa làmmeñ nag nga doo ko wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah gëm naa yàlla sa làmmeñ wane ne yow mii gëm nga yàlla waaye nag bi ci gën a am solo nag moo di al amalu bil jawaarih sa cër yi cër bu ci jëf rek gëm yàlla feeñ ci tabarakallahu sa tànk bi bu doxee du dem feneen fu neexul yàlla kon gëm yàlla feeñ na sa loxo bi bu jëfee du jëf lenn lu neexul yàlla kon gëm yàlla ngay feeñ sa làmmiñ bu waxee moom daal bépp action boo def buñ ko xoolee ba ci biir du ci gis lenn lu naqari yàlla du ci gis lenn lu wuuteeg santaane yàlla soo wàññi ne ah kii kat ak gëm yàlla mat na loolu mooy moo loolu moo di al noonu la ñu gëm yàlla mbokk yi waaye nag gëm naa gëm naa rek te tabarakallahu gëm gi ci làmmiñ bi la yem boobu taxul ñuy wax beneen bi mooy di nga gëm malaikatihi nga gëm yàlla subhanahu wa malaaka yoo xam ni moo leen tàggatal boppam laa yaasuuna allaha ma amaruhum wa yafaluuna ma yumaruun lu sax suñu yéenee mooy yàlla benn yoon ñoom malaaka yi dox si service yàlla rek am na malaaka yu nga xam ni ñaar lañu ñu ngi nekk sa mbagg yi bés bu jot ñu ànd ak yow ndeysaan loo def ñu ngi bind ko contrôler ko xool ndeysaan boo defee safaan malaaka bés wetu càmm mi nekk sa mbaggu càmmeñ daal di xaar tuuti ndax di nga tuub wala doo tuub bu xaaree xaar nag ba yaakaaram tas ci ni doo tuub mu bindal la benn bàkkaar malaak mes sa loxo ndeyjoor moom itam boo defee action bu bu saf yàlla action bu neex action tuyaaba mu gaaw bind waaw non seulement day bind waaye day bind fukk mbaa ko ëpp nga def benn mu bind fukk mbaa ko ëpp nga gëm ni loolu yàlla yàlla moo ko def nga gëm ni am na soo ko gëmul yow sa ngëm yàlla sa sa ngëm yàlla manqué na nga gëm itam ni boo duggee biir bàmmeel bu duggee biir bàmmeel am na ñaari malaaka yu la fay fekk anakir wal munkar waaw ñaari malaaka yooyu nañu mel tabarakallahu neexu te misaal waaw dañuy wax ni kenn ki moom dafa ñàng ba ba jiimu la xam kenn xamul kenn waaw kis des nag moom dafa ñàng ba bëggul ku ko xam muy ñaari malaaka yoo xam ne ku dugg biir bàmmeel di nga leen fa fekk ñu jaar yow fa ñu jaar ak yow fa ñu fa ñu jaar ak ñëpp te mooy examiné la posé la ay question man rabbuk man nabiyuk ma diinuk ma kitaabuk nga tontu tontu yu jub alhamdulillahi mu baax waaye safaan ba boo amee itam nga xam ne kat tey ji du baax loolu nit daf ko war a gëm dundam gëm ni bés bu faatoo am na malaaka yu koy xaar yoo xam ni mënul ñàkk mukk ñu jëflante ak moom lu mel ni ki noona kon muy ñaar muy gëm malaaka yi waaye tamit nga gëm yonent yi nga gëm ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni waaye am na ñeneen yàlla yónni avant moom yonent yàlla Isa yonent yàlla Moussa yonent yàlla Noox yonent yàlla yi bari nañu benn boo ci weddi jàppan yow sa gëm yàlla Euh, des na kon ni nga ni nga gëmee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu ngay gëmee yeneen yonent yëpp amul nag koo ci jàpp ni doomu yàlla la wala ñoom ñëpp ay soppe yàlla lañu ñoom ñëpp ay xaritu yàlla lañu ñoom ñëpp ay yonent yàlla lañu waaye amu ci doomu yàlla soo gëmee ni am na yonent boo xam ne doomu yàlla la rek su boobaa yow tuddal neneen waaye bul tudd jullit tabaaraka tabaarakallah soo defee ah, bi ci des nag mooy Euh, wal yawmul aaxir jullit bi fekk gëmul ni àllaaxira am na ak ngëmam yàlla du mat du mat yomul jazaa te mooy bés bi nga xam ni kenn ku ne loo mën a def ci àdduna bés dina ñëw ñu taxawal la xisaab la laaj la sa alal ji ko jële woon bi nga ko amee noo ko noo ko dépensé waaw laaj la sa julli yi ndax matoon na sa koor yi ndax matoon sa digganteeg jaamu yàlla ndax rafetoon na loolu ne ñu laaj la ko lu ne ñu laaj la ko ba laaj yëpp pere ko defee nag fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamiinihi ah fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waaye nag wa ammaa man uutiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa yad'uu subuuraa wal iyaazu billaah te mooy koo xam ni say jëf baax na ñu jox la ko ñu la ko ah mbokk sa jëf yaa ngi nii kat nga jël ko sa loxo ndeyjoor boobaa mu ñal te kontaan xam ni tabarakallah fu nga jëm mooy aljanna yàlla ci yàlla boole waaye nag boo naree texee di nag sa téere bu ñu la koy jox fa koy jaaral day metti lool ndax sa gannaaw la ñuy xar jaarale ko ca jox ko sa loxo càmmeñ nga téye ko nga xam ne tey du baax loolu nag mbokk yi dañ ko war a gëm bàyyi ko xel sinon suñu gëm yàlla du mat tabaraka wa taala ah bi ci mujj nag mooy wa tuminu bil qadar waaw wa tuminu bil nga gëm ni yàlla lépp lu mënti am moo ko dogal léegi-léeg mu neex waaye it léegi-léeg mu naqari ah bu naqaree maanaam si waxin parce que dogal nit dogal moom tabarakallah nit mooy gis ne naqari na waaye yàlla lu mu def si yow moo gën ci yow léegi-léeg mu jël bakkenu ku la gën a jege léegi léeg nga xëy doo am dépense léegi léeg nga xëy feebar wala boog sax leneen dalal loo xam ne du lu du neex si yow te xamoo lu xew nee na soo yaakaaree ne leneen keneen naka def ko dul yàlla rek sa ngëm yàlla naaw na waaw da ngay gëm ni lii li muy metti métti métti nit mënu ko def subhanahu wa taala rek moo ko mën a def te moo ko def loolu mooy dogal yi nga xam ni dogal yi metti la ah yu neex yi itam ka daalik nga xëy mu neex lool waaw mu neex lool dara du la metti am nga dépense kër gi ndeysaan am na jàmm yaa ngi si xéewal gëmal ni yàlla moo la ko defal waaye du sa kàttan du sa kàttan ndax nit mel na ni yow daq laa liggéey téeméer yoon ëpp la lépp ëpp la doole ëpp la xel te li la yàlla may mayu ko ko moom kon nag du sa nguuru jàppan yàllaa ko dogal kon daal al imaanu bil qadar gëm dogali yépp ci gëm yàlla la bokk bés boo defee lu safaan ak loolu nag jàppan yow sa ngëm yàlla matul ah loolu mooy juróom benn ponk yi nga xam ni moom la ki toogoon di laaj sang bi ni ko lan mooy gëm yàlla lii la ko tontoo woon muy juróom benn yoo xam ni bu ci nekk mat naa bàyyi xel ko waxee baagal waa ji ne ko ah waxati nga dëgg waxati nga dëgg nag moom saa waaj ne wax nga dëgg rek tabarakallaahu moom mu mu mu yëngal boo xam daal ni ah man de kii laaj te la wax muy dëgg la kon ndax kon ñàkkul kii laaj nii xam na li muy laaj waaye nag tabarakallaahu xëy na day jàngale xëy na bu ñu demee si sa sa sa sa njeexitalu xadis ba daañu xam dëgg dëgg dëgg lan moo tew ci laaj yooyu yëpp ay mbir la yoo mat naa bàyyi xel jamono bii ni mu mel ni mu mettee ni mu jafee ni mu jaxasoo bu ngëm amul rek ñu saalit bu ngëm amul rek ñu saalit te bu ñu saalitee yàq yàlla bu yàlla ñu ci yàlla yàlla yàlla musal góor du saalit lay gëm yàlla lépp rek mu gëm yàlla mu mu xam ne yàllaa ko yàlla yàllaa ko dogal mu delloo lépp yàlla féex am jàmm tabarakallahu loolu mooy al martaba saani te al imaanu gëm yàlla soo defee ñu nuyooti ñëpp rek baalu xaq ñëpp si kàddu yi rek xam naa su dëngee itam xel yee koy jubbanti ba mu jub tabarakallahu euh, ñoo ngi nuyoowaat ñëpp ñoo ngi ziyaara ñëpp ñaa ngi baalu xàq ñëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax bu dëngee yàlla nga xam ne jubbanti ko ba mu jub si xel yi ci xel yi tabarakallahu wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu